sëñ Dieye maa ngi lay siyaare di nuyu waa Setantal ñëpp keroog du maa ngi dégg Omar Sall saay-saay bi ah, am ku doon bëslu ñu jiiñ ko fa ak violé du maa ngi dégg muy wax benn aaya boo xam ne si ne aaya ba xam na arrangé na ko keroog donte mënut aaya ba sax nag lawlaa istamixtumuuhu sannal muxminuuna wal muxminaati bi anfusihim xayran waxaaloo xaasa xikkun mubiin waaw aaya boobu ci boppam sóoratu nuur aaya douze waaw lawlaa mi sannal muxminuuna wal muxminaati bi anfusihim xayran waxaaloo xasa ifkun mu biin keroog lool aaya boobu la jëfandikoo de nee na maanaam bu fekkee ne dangaa dégg ci nit dégg ñu ñu ñu ñu tuumaal ko dara nee na nen neel du dëgg neel du dëgg ak sikkim bu tasaaroo bi waaw neel du dëgg xam nga ñoom ñoom alxuraan di leen a teel a leeral nañ ñi ban xàmmee leen afa tuxminuuna bi baxdil kitaab wa takfuruuna bi baxd maanaam la jël lenn ci aay yu leen ci neex ci téere alxuraan bi wala lenn ci alxuraan lu leen ci neex la leen ca la leen wut wax seen jikko yu ban ñu sànni ci àll ba jël yenn ni aay di ci takk fiir jullit yi duñ xool mukk ci jullit yu la rafet xam nga bu fekkee ne da dégg ci nit dara la la wax yàlla lim la wax dana law laa istamextu moomu la bu fekkee ne da ngeen dégg dara ci ci ci seen mbokkum jullit bu góor wala bu jigéen. ni ngeen rafet njort ca la ngeen dégg xam ne loolee bu dee safaana ngeen ne amut ne lii kat aw luur dong la lii moom ay sos la rek nag yu leer na añ loolu la alxuraan wax waa léegi nag dégg la wax moom waa léegi boo gisee nag yow gis nga ñaari vidéo gis nga vidéo ñoo xam ne ay jaayil lañ sol nañ lu weex ne dañuy tawaaf te foofu du bërëb bu ñu war a tawaaf waaw vidéo bi taxaw leeral ko ne fii kat du bërëb bu ñuy tawaafee nag vidéo boobu kon moom moom ngay sànni léegi daw riir wuti vidéo ba nga xam ne moo bon yow gis nga lu leer tee nga ne ah waa kay li gënoon bu dee ab jullit nga waaye ab yéefar moom xam nga bu yéefar la rek waaye li gënoon ab bu dee ab jullit nga da ngay taxaw ne ah wax dëgg yàlla day diine ji de nii lañ ko soxlaa boo yore boo yore ñu xamut danga leen di xamal xëy nañoo ñooñu ñàkk ñàkk xam moo tax ñu def loola waaw nga ne ah wax dëgg yàlla fekk nañ fa ñu mat de fekk nañ fa de daayira bu mat ndax mu muqaddimatul xidma de ma nga fa taxaw faay taxawaay mat te it boroomi xam-xam lañ nee nañ leen fii du bërëbu eh, tawaaf bu dee siyaara ngeen ci jublu nag ndax mbir mi kan la ci jublu rek a ci am solo bu dee siyaara ngeen ci jublu nag baax na ndax siyaara mi wëñul dara te sax nag di siyaara di wër bërëb ba nag ñun nag dañ ko miiniwul ndokk mën nañ ko teree waaw bu doon te ne bàyyi woon na nin tey ñu ñu ñu def seen tawaaf googee def fa seen i bàkkaar maanaam def fa seen bokkaale yàlla lenn lu ñu def ko kon ñun fu ñu jëm tey gis nañ ñaari mbir moom am naa fiq dëgg nag mooy ki nga xam ne day teg bëtam ne lii ma gis lii ma xool du moom lii ma gis du moom fexe indi lu ñaaw la kuy wër ci yow lu ñaaw lu ñaaw rek lay gis waaye koo xam ne yow da ngaa da nga da doon jàngal jabaru jàmbur alifun ba un un nangu ko tas ko takk ko yow ngay néew bu koo xam ne yow ku war a faatu lan lay mën a jàngale ci diine koo xam ne yow dañ laa war a rey kooku boo amoon xel sax yow diine waratoo cee wax ndax yow diine bëggatu la goqi na la wacc na la sànni la ci àll àll ba ak sa tànk yi weex ak sa mbaxana mu matut ak sa ndiggulu dóox ak sa socc boo dul bomb say bañ mukk sa gémmiñ gu xasew sa mbon bañ wàlli wi ba ñëpp xam ko ci yow ngay daw di làqutu senegal gi nga juddoo ñimétoo fee teg sa tànk ndax boo ko fi defee ñu ray la bàyyi fi ku mel ni mbaam inna ankaral aswaat la sawtal amir nga xam ne Omar Sall moo gën a ñaaw mbaam aw làmmiñ nga xam ne kàddu gi moo gën a naqari kàddu mbaam na ma mbaam jéggal sax man ndax mbaam bu ma ko dee askanale di ko nuróoleeg Omar Sall mbaam dana ma mere kon mbaam moom na ma jéggal man waaw kon na jàpp naa ne woon lu muy taxaw di jéem a jàngal waa moom de doon daa ñu fa taxawoon bàyyi leen ñu def kon musiba am waaye nag fekk na fa ñu leeral kon ñoom alxuraan li leen arrangé li ñuy jël li leen arrangé wu ñu sànni ci àll ba ñi ñooy naafiq man musuma gis yéefari sax a gën ab wahabi yoon wallahi alxasim nekk bu wahabi yoon nekk ab yéefar bu ñu kukk a ko gën